sal

moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokku jullit yi ñu bi nuyu mbokku taalibe yi nga xam ñoom lañ bokkal Serigne Touba di jiital suñu yooyu bi nag suñu wasila suñu Serigne Serigne Cheikh Saliou ibnu Serigne Saliou di ñaan yàlla mu yàgg fi di ñaan ñaanal sëñ Mountakha Mbacké xalifa général bu murid yàlla yàggal ko fi ba li mu naan liggéey Serigne Touba lépp suñu borom sottal ko ba naali boppam yàlla sottal ko ñuy am mbégte ak contentement di ñëwaat fii yi nga xamante ni mun na ne fii la daayira bi naan Ashalia fii la dooree Ashalia international muy daara bi nga xamante ne ay ndaw lañ yoo xam ne ñu ko jiite la ñuy def làmbatuñ ko ndax Serigne Saliou moo leen yaral boppam ki nga xam ne moo ne ci bopp bi di Serigne Mohamed Mbour di Serigne Mohamed Rasoul Mbour ñoon koo xam ci Mohamed Salih Mbour mu ne ci bopp ba di ci def liggéey ba am solo waaw ñuy santaat yàlla nag ci année bii ñu ñëwee ndax ku ne xam ne ni diggante daaw ak ren nekkul lu yàgg loolu waaye tey yóbbu na mbir mi foo xamante ni kawe na suñu yott ndax ba nee ñëw de yàlla xam na ni yaakaaru woon ni bis bi nii nii lay demee yaakaaruñu koon yottuñu koon ndax waajal nañ suñu bopp waaj nañ wàccaay yoo xamante ni seen bi fekk si nañ ci ci njàmbaar fekk si fit ci lépp li am solo rek mooy am yéene liggéeyal Serigne Touba tey ban ko defee gis nañ ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy résultat yi am nañ yéene liggéeyal Serigne Touba suñu doole lott ci Serigne Touba nag dooleel ñu kattanal ñu ba lañu bëggoon lépp sëriñ bi defal ñu ko muy xel ko mu ren yi am nañ ci lu kawe suñu njot kon ñu ngi soññaa daare bi nga xamante ni mooy mooy daare asaalixin international waa nekk ci àddina bépp travers du monde entier ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ànd liggéey bi te nekk fi nekk bitim réew ñoom it ñu ngi wax seen tur ni ay jàmbaar lañ ay liggéeykatu sëriñ Tuubaa lañ ay ñu bëgg Serigne Saliou lañ ñu fas yéene liggéey seen seen seen jëm yee wute waaye seen jëf wutewul ndax am nañoo ñun ci lépp di santaat yàlla di am xel mu dal di wane ni liggéey bii ñuy liggéeyal Serigne Touba Serigne Touba teg na ci loxoom te Serigne Touba kat ku koy liggéeyal ba mu teg loxoom da lay kattanal dooleel day tax nga ñeme da lay nital day tax nga xam fa nga jëm kon ñoo ngi dellu santaat yàlla di dellu santaat yonent bi di dellu santaat Serigne Touba ak suñu Serigne bu ñu yaakaar muy Seydina Serigne Saliou ngir lii mu liggéey ñett nit liggéey mbooloo la te liggéey mbooloo mu am Pastef la kon maanaam bu ñu ci tollee fii rek Serigne Saliou moo ñu bàyyi moo ñu bàyyiwul Serigne bee ñu jàpp Serigne bee ñu Serigne bee ñu taw Serigne bee ñu kattanal kon jël nañ lépp delloo ko Serigne Saliou di cant nag cant gu am boo xamante ni am na tàmbali waaye amul fu mu yem ñu di taat bu baax a baax a baax mbooleem ñi nga xam ne moo nekk ci daari bi ki nga xamante ni moom mooy nekk ci bopp ba di Serigne Mouhamed Saliou ba ki gën a ndaw ci ngi leen di leen wan ni mbir mi nii la te jaru te dañ ne yàqamte yàqule daanu fu yàqamte daanu ñi daw moom duñ dañ sax sax xool ba la bët la gis waaye daal ñun daara bu ndaw la ñu ngi doog a jug bi ñu suñu deux ans deux ans te ay bërëm bës rek la fi ne wax dëgg yàlla daara ji mën nañu sax trente personnes mais allah li fi taxaw ñëpp bës rek ko taxaw ay xale yu am jom fi ne ay xale yu bëggul liggéey sëñ tubaab ñoo fi ne asaliha international suñu jëriñ Mouhamed Abdou Mbow am naay coordinateur bi bu nekk am na poste bu nga jox xëy na ñoom ñoom dañu waxtaan seen poste man maa maay coordinateur bi naa tàncax gi ñëpp sax amoon naa seen jaboot da nga ko respecté ngi xel ko man nag maa ngi woo ñëpp surtout booy Dakar yi ñun Dakar la ñu weddee géej waay parcelle géej waay Pikine ñàkk koo jox dara sax du lu wóor kon kuy defar dëkk bee Tuuba ni kaay nu defar lin bokk tem war kuy tàng xam lu yaa mata dóor jullit bu ne bu sañoon Tuuba ëllëg di këram murit bu neet bu sañoon Tuuba mu def ko ni or léeg-léeg nga gis nit ku jël léppam de def ko ci kër ba mu jeex mu jóg lebiwaat ngir mee bala mi ca biir te yaa ngi dëkk ci biir Touba sa lépp di jag nga am alal tabaxi kër des desoo jox ko sa buur te yàlla xam na ku nekk dencam demoo la ko jox ku comp jox ko mu compaatal la jox ko lu wóor ku mën dërëm na ko jox koo xam ne mën na junni na def ku man million nay def ba ci milliard falaa yukallifu nafsan yàlla lu digal sëñ bi rek moo fi nekk dafay génne rek ku nekk li nga nekk sa xol ko génne nekk tamit am sa mos bu mu ñëw mu bari génne nga ban si kon rek ñu mën a am événement yi moo tax ñu waral leen si xel ñu ne ñu tamit incha allah ñu ko génne si ñëw suñu mooy yàlla baax na ñu ñaan rek bala ñu ñu doog a mën a parce que heure bi daal lañ ko fi sol ak ñu ñëw ñu mën a jël dara déwén incha allah rabbi ba yàlla dimbali dee nga xëy na fukki parce que tamit loolu mooy objectif maanaam def loo xamante ne nii maanaam parce que maanaam xol na waa moo am solo. waaw ñu ngi ziar di kontaan ci mbokk taalibe yi gis nañ fi xéewal bi fi jaar lépp lim boo xam ne fédération boo xam ne tàkkuwul mais Pastef bi. pastif gi ak yéene bi moo tax macha allah gis nañu berne gi jaar na yoon nañ di ziar mbokk taalibe yëpp di ñaanal yëpp jàmm su nekk yéene bi fi indi ak euh, loo fi mën indi daal si aaju yàlla faj na si barke Serigne Saliou en tout cas kontaan di euh, wax ni xel daaw fii la ñu taxawale bi dem nekk li mu tuuti di dem euh, ñibbi Dakar. macha allah gis si ay mbokk taalibe yu am Pastef ñëw jàpp si indi seen doole seen koom macha allah en tout cas ñu di kontaan di ñaan yàlla euh, ak Serigne Saliou tax ñu ñëw si doolam bi am nañ suñu ñaan faj aajo yëpp. bal sallallahu taala bur alayhi wa sallama adduna yaa ka mën a wor xamoo lu baax xamoo bala loolu di suñu toggee ñun ñëpp nekk nañ ko bi kon bokkul woon nag xam-xam baa ñu seexal tey ndigal xam na jóg leen gaaw bu nekk na góor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 tekkat ak lantinoor la ca yées mooy fab lu ñëw jàllaleel bul tab yow ci la xóor taag la xóor mooy ñu jox law sas nga lank ba yoo kay bay nga xaaju sasam ñu wóolu daa war a wóor laa biira man rekk laay def waaye diglewu ma ngir digle ak tere sëñ si déena mi laa biira man ngir digle ak tere sëñ Seex di leer dinaa ko fekkee de daa kàbbar te jottali na te jëmañu yàggutal ma bu ci yàgg ci yàlla ma def man ci baa xam waare loolu sama mbir ndax jamono jamono muy sax yow nga dara du ma waar jamono lii la maanaam góor jigéen alal xam-xam ne yoon wi daa am muy bañ na ko wax ba mu leer mu am bis ne nii tam ci Serigne Saliou Serigne Touba am na lu taa nit ñi dal ci kawam ba mu yàgg Serigne Massamba ni ko te ngaa wut nit la topp topp sa mbaar looy digle xel comme kat day fekk loolee na nga ko bàyyi may borom jublu Kajoor su ngeen daggee dagg nag su desee dana ak liggéeyal sëñ bi am ñu la roy te da ngay xool lii tam ñu la wër ak ñu koy gor ak jamono jooju koo xam ne moo fekke waa mag ñëpp yooyu dafa nekkoon doyoon waar lool te jamono jooju ñëwoon jëluñ seen yitte yëpp def ko ci liggéeyal sëñ waaye day mel ni sëñ moom chaque jour lañ see yoon ni ngeen dafa wóor la nga xamante ni nii sama borom da ko defal may yooyee ba tey mi ci yàlla na jàpp ndax sëriñ Saliou toog na bis am mag mu ñëw ni ko muy mujj fay xam nga léegi yàlla nañ ko may waalakat ñuy cant cant bu xoor te ñaari leer yi ci leeru àdduna fa nu jëm yàlla nañ ci leeral bi woonu daa xamal yàlla ak yonent nañ ko teeral bi yamoon di ko defal ab Muhammadu Rasulullah sallallahu taala wa sallama ah defal ñu ci lu kawe suñu njort ñëpp Saliou moom ndax ku ne xam na ay mbiram mën a defar la doomu aadama zaahir ak baatin tool yi waaw salaam ah li ñu mën a wax ci moom de bari na de na lim ñu sant rek la ñuy def te dañ koy liggéeyal ba xëy sàggoo suuf rek ndax bëgg ngeen ko bëgg ya gaba la la la la la la Cheikh Bayu Góor digal faal ya gaba la la la la la la amul xaj ak kii seen Mbàkke muy sunu muur yow yaa ngi ci yoon de defar ay yoon bu dee sa yite ku ne ci yoon war na caa góor góor lu def ca lu wóor te lii yàlla na tàllee tàlli nam bëgge woon ñu tal ko teewe ko bam yeggit ñu wet ni saxaar laamin tagal xalimaak sak cant doo mën a jot ci asakaay kii nu berndeel jub nu lekk ba suur ku dégg way wi na ñaan sëñ siid yàgg te wér ak mu laamin jëmmi dafa wii bi jaayi xadiir ku dégg way wi na ñaan sëñ seex yàgg te wér ak mu laamin jëmmi dafa wii bi jaayi ku dégg way wi na yëpp yàgg te wér ak mu laamin jóob mi dafa wii bi jaayi xadiir Saliou moo tax ñu teew fii ñu teew tey jii lépp ci liggéey bi te liggéey boo gisee dañ ci am ndigal liggéey bi sëñ Cheikh Saliou moom boole ñëw suñu sant ak Serigne Saliou ci teew bi ñu teewal ci too teewalam yi mu mel ni teew bi ñu teewal ci teewam yi day day day mbëgte ci ñun di ngëneel ci day mbëgte ci maanaam ay jeunes lañ ba pare yaakaar Serigne Touba tax suñu lépp dañ koy bàyyi ngir Serigne Saliou tax moom moom waa woote jëflu maanaam jëflu mooy liggéeyam te jëf ju maanaam moom xam na payam ndax moom mooy fay ba tax na toolam yi de maa ngi ciy tool yi di liggéey sëriñ Touba waaw nekkuñu ci leneen ñu ngi liggéey sëriñ Touba di xool di toog ci nii waaw xool mala yi di toog yaa ma gën a xam ceebu jën yaa ngi nii xel kom lay baxee xel sëriñ Saliou jamono ceecax fi doon ñëw ba ay naga ci jëlee lépp lu ñu fi fekk sëriñ Saliou def suñu ceebu tëllu jën yu baax sante ko sëriñ Saliou la fondation Saliou international eh non foofu la sëñ Saliou bu baax Mbacke Balaye sax ñu jox ndigal tey ñu ñëw fii xel ko nekkoon suñu reer boo xam soxna Mariama moom mi nga xamante ni moom ji ñun jigéen ñi ziar bu baax a baax yoonu wax mi moom def naa ne lii yëpp moom la ndax mooy ji jiite ay ndox bi métti ñu koy sant ñaanal yàlla fondation bi dem ba nekk roo sa international bu rëy a rëy incha allah ñu ñaan yàlla nafal ko bi yàlla bu mu nekk suñu mu jël mu jënteel am nañ ko ay ay at yu bëree bëri ba suñu sët ba ma jug ta santaat ki jara santaat teqali gontu di tagg Saliou yar nga nu yar nu xamal nu yeenu fon nu xamal nu yàlla xamal nu yàlla nu jaamu yàlla fonk la taaloo yàggal nun baay yàggal ci nun yaay tegal ci nun waay te nan ko taaloo wuti nan la te jàpp nan la ñun gëmu woon la te wal nga taaloo yaayatu ni mbir yaay sunu biir taxam sunu biir bokk ci saaliwu bay nga sa tool yi defar sa gaañ yi sakk sa rax yi bañ ma ci saaliwu yàlla gërëm na yeneen gërëm na ku xam gërëm na sayanu saaliwu subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wasalaamu ala mursalina. Pour conclure en fait euh, je vais parler des, différences qu'on euh, au niveau de, de, de C'est un daïra qui est bien structuré parce qu'on euh, n'a pas débuté juste pour débuter. bien on s'est à travers plusieurs réunions pour parler en fait des différentes directives qu'on pourrait octroyer pour pouvoir aller de l'avant. Du coup dans notre daïra partie administrative, que ce soit au niveau tout ça, orchestré par notre théorie et président, Serigne Mohamed Rasoul, qui, qui est un homme de exemplaire qui a été formé et éduqué par Serigne Salim On a aussi un service sécurité, on en fait partie, un service sécurité qui assure en fait la sécurité, le bien-être, l'hygiène, tout le daayira. que ça soit lors des manifestations, que ça soit lors des jams, que ça soit lors des appels. On a aussi des responsables qui, vont, qui, qui, sont, qui sont au niveau de la cuisine, des responsables qui gèrent la nourriture, des responsables euh, qui gèrent la coordination. Dans cette perspective, on a